asalaamaaleykum ñu daal di lay nuyu ah, ñëw rek fekk si la tey fii terrain basket bi nga xamante ni yaa ànd ak monsieur le maire ngeen daal di organiser li nga xamante ni écran géant bi. waaw euh, maaleykum salaam euh, di nuyu population Koungheul yëpp eh, di santaat yàlla bu baax euh, avant tout di présenter wu man la El Hadj Diallo chargé de l'organisation ñu am mbégte aussi tey. euh, fii ci terrain basket bi doon euh, seetaan match bi nga xam na tey euh, dafa nekkoon match bu am importance euh, ci équipe nationale amal importance ñun ndaw réew mi di doomu réew mi euh, ñu ñëw seetaane ko fii ci terrain basket bi suñ ndigalu suñ kilifa euh, muy monsieur le maire le premier magistrat de la ville de Koungheul ak euh, Madiaw Mbengue ak Mamadou Moustapha Gadiaga ñoom Sathiam délégation bi El Hadj Moussa ñëpp ñooñu ñoom Mame Samba Seck. Nous ñop ñom Mansour Gueye ñop ñoo sétane fi match match importance la jox ñu euh, pays d'organisateur euh, le Qatar euh, score vraiment score bu 7 xol score bu 3 à 1 à l'absence de ñancho Sadio Mané vraiment xamna né fim nek aussi population Koungheul bi am ci mbégte Koungheul yëpp lu naaj tàng tàng tàng daaw nañ mobiliser wu ñëw euh, partagé ko ak euh, monsieur le maire Alioune Badara Ly mi nga xam ne tey euh, moom ndaw ñi ñooy mbégteem ndaw ñi ñooy wéttalam ndaw ñi ñooy ndamam ba tax lépp loo xam ne tey am na au niveau de Dakar.

c'est pourquoi on est fier tey moom tey moom xol yëpp a seen te et puis ñu ngi fas maye concert suba à partir de 21 heures fii ci terrain basket. voilà ñu gis na ne concert boobu yéen rappeurs yëpp yéen a ñëw te gis nañ ne rappeurs yi nga xamante ni mooy ñu yëngu ci quartier bu nekk Koungheul. ah tey naka naan nga gisee max bi. gagné laa bëgg gagné laa bëgg de. ah gagné nga bëgg waaw gagné laa eh, bëgg. di ñaanal Sénégal ngir mu am ndam. ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan. ñu sant yàlla di ñaanal suñu ndaw ndaw rek suñu gaynde yi ndaw rek. ah tey nag ñu daal seen nga xamante nga taxi max bi jot nga bàyyi lépp ñëw daal Général Macky bi tey moom sa liggéey moom bàyyi nga ko. Sénégal jaral. Ah, ndax benn benn moment bi ñu toll nii gën amuñ lu dul ñoom ñoom waaxul lu dul liggéeyal ñu indil ñu ndam kon amu defuñ duñ war a def lu dul am jot ngir seetaan leen supporter leen ñaanal leen yàlla may leen ndam daal. si ah, barke booy conseil Aliou Cissé. maa si moom neex na trop wax dëgg yàlla lii rek lañ doon xaar Sénégal lii rek lañ doon xaar te allah ndam li day ñëwaat. ah tey bu Sénégal ah, gagné yéen ñëpp ban sentiment ngeen am. contentement lañ am ñun ñëpp barki yàlla ñun ñëpp contentement ñëpp kontaan mais des na ndam bi day ñëwaat day ñëw fii dañ koy jël. Eh, kon kay supporté ngeen à 100% waaw waaw dañ supporté. ànd ak monsieur le maire. waaw ak monsieur le maire Badou. mu ñu indi koy di ko ah bien sûr je suis un Sénégalais qui est à fond. bon la dernière fois on nous a battus, mais bon on reste toujours confiant parce que c'est pas du tout évident avec l'absence de Sadio mais bon on espère aujourd'hui on va gagner parce qu'on peut le faire. Voilà,

C'est vrai que nous, de notre côté, nous avons dit que c'est bon, mais il faut que nous soyons dans le feu de l'action pour savoir ce qui Victoire, bien sûr. Victoire. 2 0. Voilà. Ok, merci à nous d'avoir contenté. Vous voulez dire que nous avons supporté les Sénégalais. Nous euh, avons confiance au bas. Thank you. Hein? Merci. sol couleur Sénégal sol maillot Sénégal sol bande ski Sénégal léegi tey nag ñu daan nuyu leen yéen ñëpp ñu ci côté Sénégal ngeen tey mag si tey lan ngeen. waaw wax nga dëgg de macha allah ñaa bëgg mu waaw mu yaa ma gën a xam. tey moom dañaa supporté dafa mot la moom dañaa bëgg Sénégal gagné loolu lañ bëgg dañaa allah mais moom. mais li ñooy moom waruñ déplacé. Ah. waaw mënuñ lii nii moom yaa gën a xam. <laughs> tey moom dañaa bëgg moom Sénégal gagné dem kaw loolu lañ bëgg tey moom waaw loolu lañ bëgg mu gagné moom. Sénégal gagné. <laughs> waaw mu gagné jël coupe waaw ñuy indi coupe bi. voilà ñun ñëpp <laughs> waaw dégg nga si waaw ok ma waxuma. ñoo ngi ñaan Sénégal gagné macha allah waaw suñu réew ñaa bëgg ñu gagné waaw.